leen neexee sañ nañ koo jalgati su leen neexee sañ nañ koo teg jalgati yoon nag ci ci côté nguur mooy liñ tëraloon ne nguur yemul ci benn jëmm la fi nekkoon ak li fi nekk ba fawu la képp ku ci ñëw lañ ca tëraloon loola boo ñëwee da ko koo war a doxal ci biir loolu nag nguur ak Macky Sall nee na dana jalgati loolu ñu xam ci yoon ci Walfadjri rek nag dana ne lii de yoon ko ko may lii de état ku mat sëkk waaye nag danaa ko jalgati loola nag ni ko jalgatee mooy këyit gi ñu gis dañ cee bind ne lu ñuy nëbb la di tax nag ñu muri ko mooy jëf jim def

ñu daal di def baar DGID baar SP ana lan ñan ñoo daje woon pour tëral li nga xam ne moom la këyit gi nar a maye ci wàllu presse Madiambal Diagne ma nga toog monsieur Yakham ma nga toog monsieur Cheikh Tidiane Thiam bu Soleil ma nga toog Mohamed Joseph saar ma nga toogoon Alsane Diallo ma nga woon ca jotaay ba Babacar Diagne ma nga woon ca jotaay ba Ablaye Bamba Diallo ma nga woon ca jotaay ba ak ay dara ci côté état le président de la république Ablaye Wade moo jiitu woon daje ba le ministre d'état Habib si ma nga toog fekke ko le ministre de la communication euh, Moustapha Guirassy ma nga toogoon par Samba Mboup bu cabinet bu président Wade ma nga toogoon Aline Diop Mangatogon, nga Serigne communication président de la république Mangatogon, maître Amadou Sall Mangatogon, nga Mamadou Diop de Croix, Nous Nous, nous, nous nous Nous woon nous lan Nous wax presse bi bi lam fiscalité loolu tax nous ba téye leen fekk ñun ñu ngi doon fay régulièrement ndax xamoon ne li jig ñeneen ñi xëy na jiguñu ñu ne ñun na ngeen téye seen loxo jox ñu kayit gi ñu téye ko denc ko kon looloo ñu taxawoon a téye suñuy loxo lañ téyewoon suñuy loxo nag loolu lañu ne tey loola moom danañ ko guqi tey te fekk ñun téyewuñoon suñ loxo pour bugg koo téye yoona ko yoonal yoon wi ñu fayloo yoon woowu moo ñu ne téye leen seen loxo ñu ne nag yoon woowu Macky Sall ak fiskam jalgati nañ ko nee nañ ko fay loolu nag waxoon nañ ko ci presse bi bañ gisee lay yoot wal fajri bu altine bi paase bindoon na ko bi bindee loolu ñu toog di séentu ne woon ñu ngi nar a gàddu ñetti mbir benn bi di fisc benn bi di BSDA benn bi di APR ku nekk am nga loo yëngal pour bugg a woon ne fii laa leen di jaare biñ xëyee nag tey ci ajjuma ju sell ji ci weeru Chaabaan bi Macky Sall yónnee na fisc bi ci mboolem banque buñ am kont ne ko la fa nekkoon teg ca loxo la fa nekkoon ñi ci fayee suñuy fournisseur di ci fayee yenn liggéeykat yi nee nañ ko teg ci loxo muy benn nga xam ne mënatoo faa dugal mënatoo faa génne te mënoo ko itam def ci beneen compte puisque Walfadjri personne morale la muy benn ñaareel bi ñuy yónniwaat seen huissier mu ñëw indi kayit gi ne li ne nañ ko fayagum moom wàllam cinq millions yu teg ba pare nag ne li nekk ci kër gi yëpp bind na ko lépp lu fi yëngatu lu ñu war a jaay la la dalee ci big yi ñuy bindee ba lépp jaay ko loola li muy firi mooy ne nee na dana rendi Walfadjri tey loolu la Macky Sall wax ci bisu àjjuma ji ci la ko déclaré solennellement man nag damay dellu siwaat ci askan wi ne Walfadjri ñoo ko moom ñi ni Walfadjri seen yëfi bopp la seen miir de lamentation la lu leen naqadi fii lañ ko mun waxe waxee lay laay delsi duma dem nak di taxawani fenn wala di wote ji fanen puisque li dafa ne fang yi ci des yëpp dañ dan wax leneen waye li jalgati yoon la te ka koy jalgati moy ka warona taxawal degeural yoon motax damay jël l'opinion publique nationale et internationale ci fay yi nga xamne tay def nañ ko nga xam jog nañ ut si Walfadjri ne dañ ko ray tay su ko defee nag loolu mooy moom laay annoncé jël opinion publique boobu jël liggéeykat yi fi nekk jël mbooleem presse nationale et internationale li nga xam ne moom la état def pour jalgatee ko damay wax nag mu leer ne bu fekkee wax li nga xalaat bàkkaar la kon ni ñooy bàkkaarkat yi gën a bu fekkee nga am noo gisee walla nga am ñoo jàngatee ñëw teg ko dana tax ba fa nga nekk ñi nga nekk di liggéey yépp ñu xañ leen ñàkkal kon nañ xañ ñàkkal waaye ñun de continuer di wax li ñu feek ñu ngi dund bu fekk loolu mooy tax sa kanam duñ sëgg mukk ñëw ci kanam kenn di laaj loo xam ne ak yelleef la boo xam ne yoon moo ñu ko may dëkk bi ñu dëkkee réew mi moo ñu ay tëralin yu leer ñoo ñu ko may duñ tàllal si loxo di ko ci ñaan suñ jël li ko no waaye jël ndax xalaat yëf yi ci askan wi yëpp mu xalaat ci su ko defee itam maa ngi déglu xalaat xam ne ñu ngi jëm si ci ñun ba xam ab bi lan la ñuy def ñoom nag gannaaw nañu tëj nañ compte yi loolu tëj nañ ko bu ñu jaay si kon à tout moment tee jël kon waxtu yéen déggatul leen ko bu mu leen jaaxal Macky Sall mo déclaré jalgati na yoon yëpp te dana wal Walfadjri dana mbooleem fi nek ndax dafa soxlu kon lolu la néwon dana ko wax mbooleem Sénégalais yu góor jigen ñu xam li nga xamné mom lañu xew di leen wax nak ne Walfadjri moom bàmmeel sax